Mhm. dama ne la weeru rajab mooy weeru yàlla mhm. waaye yàlla judd ci di la yàlla mhm. te bàyyi ku yéeme la xoolal weeru rajab bi mu judd oustaz Guèye rajab boo ko chiffré ñetti xaraf la rajab xoolal baay baay rek ñetti xaraf la xoolal tay ba gam gane àdduna tay ba ñetti xaraf la xoolal lew na gëm yaroo lew na ñetti xaraf la xoolal kuusi gëm taalee fay du kuusi ñetti xaraf la xoolal medina gi mu sanc ñetti xaraf la mu judd nag ci fukki fan ak juróom mu ñetti juróom kooku dafa yéeme de kon kooku judd ci weer yi moo ñëwit xamal ñu ñett ñooñu moo ñu xamal Seexu Tijaan moo ñu xamal yonent bi xaqiqatan moo ñu xamal suñu borom kon kooku mënutoon a bañ a judd ci weeru rajab mënutoon ci ba ndax mooy mooy waayi yàlla kon foog mu ñëw xam le yàlla moo tax nit ñi mënuñoo déggoo ak moom bàyyi Niass ku yàlla dimbali wut mënoo ko xam waxuma alaaji Ibrahima Niass alaaji Ibrahima Niass mi am ndeyam Baye waxuma kooku mais bàyyi Niass mi nga xam ne mooy bàyyi ruux yi doomam mi naan ko Baye yaayam sax ne ko Baye magam alaaji Mouhamad Zeynab bu ñu demee ni moom ne ko Baye kooku ku ko waxut bàyyi yàlla moo la dimbali wut waaye ku xam bàyyi rek xam ne mooy bàyyi ndax mooy bàyyi ruux yi